dégg nga suuratu tahrim madaniya la kon guddul xaw ma fukki aay la ak ñaar kon guddul ñaari téeméeri baat la ñeent fukk ak juróom-ñett junni ci xaraf ak juróom-benn fukk saabu suulu bopp saar wi nag am nañ ci wuute dañu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis soxna Xafsa dafa ñëw ñaan ko ndigal ne ko dama bëgg a ziyaar ji sama baay mu ne demal ba yenent bi joxe ko ndigal Maariyatu Xibti bi nga xam ne taara la woon ci yenent bi nga xam ne mu xaw xis moo ko mayoon sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ak moom ci nekk Xafsa Xafsa doxi soxlaam ba ñëw fekk yenent baa ngi delloo bunt bi mu xaar ba yenent bi génn mu ne ko ah yow nag li nga ma bëggaloon ci sama kanami nawla yi sama kanami gor yi sama moromi jéeg yi nga ma fi tuutalee nii jël sa jaam bi di ko indi sama néeg bi di fa tëjee moom ah yow lii nga ma yéene yéenent bi ne kii nag xaraamal naa ko ci sama bopp waaye loolu nag na yem suñu diggante waaye doo ci yam sax mooy. su ma fi jugee Sina Abubakar di bàyyi Aïcha moo fi njëkk nekk xalifa gannaaw moom nag sa papa tegu waaye loolu la yem suñu diggante comme moom comme boo demee kër euh, góor ñeenti jabar yi rek da nga ci jiital ñu def ay kalan nga gis ñeenteel baag aawa ba ànd wala ñaareel baag aawa ba ànd wala yaa xam daal léeg-léeg gis kalan yi daal comme ni koy gisee <laughs> kenn ku ci ne ak kale yàlla boole wala ci wujju peccor ko yi da gis kenn ku ne ak kam ci jubóo xaf sa wax ko loolu am na ñu ne loolu mooy sababu nusul bi ñenn ñu ne déedéet yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan jëfandikoo loolu ñuy wax lem saa bu julliwaan tàkkusaan nag day dugg ci kenn ci néeg soxna yi jëfandikoo fa lem ba mu duggee néegi Xafsa yàgg fa lool léegi nag kooku ñu Aysa nag firaa ngi jàpp ko ndax moom mënul pardonné lañ yàgg ci mu jigéen jigéenam bële te moom yàggee wuñ ko noonu ci moom mu kootoo ak yeneen soxna yeneen bi dina xam nga ni ñuy defaa dañ koy kàmbal teg ko diim mooy comme ñëwati sa néeg mbaa mu jublu rek dalal sa gémmiñ ñi su ne lan la nga nekk sa gémmiñ ngi day xeeñ poora poora xam nga poora de poora mooy li ñuy wax oignon xaw ma oignon xaw ma lañ koy wax léegi gars yi soppi tur bi na di wax oignon <laughs> moom la ñuy wax poora dégg nga oignon baatu tubaab la de n'est-ce pas wala waaw kay waaw kay man kay poora laa xamoon léegi la gars yi mu dënd ko kenn mën nga wax poora léegi <laughs> kum jublu rek ñu ne sa yeneen bi yeneen bi sa gémmiñ gi day xasaw yéen dama man lem laa nekk yéen laa laa lekk fële ñii ne néeg xam sa la ka lekkee woon nag ñii ne néeg maareetu xibti la ka jëfandikoo woon loolu it wax nañ ko ci wax ji ba yenent bi ci xaw a jaaxle ci gaa yi ni ñuy dummóoyoo comme moom dafa bëgg xet gu neex te fu mu julli ñu ne ko sa gémmiñ gi dafa xasaw loolu doy na waar mu ne kon bu fekkee loolu la araamal naa lem ci sama bopp alquran dikk nag di tontu ca loola xam nga araamal naa sama bopp ci nangam te boole wëccëg gi ñu ne kafaar du ca war bu fekkoon da cee boole ngiñ moom ci la kafaara di war ñenn ñi nag kafaara naan ñi ne kafaara waaye la gën lëng daal mooy kafaarawul moom ndax comme amu ci dégg nga wax bismillahi rahmaani rahim yaa ayyuha yow sallallahu alayhi wa sallam yow mi ñu soloo mi waaw yow li ma lan moo tax ngay tere walla ngay xaraamal maa lëf loo xam ne axalla waaye foofu it bàyyil xel ne lem gi la gaa yi gën a lëngal nag ci mbiru kële bële jàmba foofu it boo demee ci tafaasir loolu lañ gën a lëngal de maa mbir moo xam ne axalla daganal na ko allahu yàlla ka ñeel la yow lii ngay tere sa bopp naan xaraam na la waaye yow ko àgg boo war kaa mën a tere sa bopp sa borom daganal la ko foo ko teg hmm? ah ñee ñoo koy yéeg rek te gaa wàcc rek teg ko diil rek te yow lu tax nga koy def mooy tabtax yi yaa ngi jéem a sàkku ci xaraamal googu mardaata azwaajika ngir maane sa soxna yi bëgg sa yi bëgg rek kese bëgg jàmboog ñëpp rek moo la yóbbee waaye xool yàlla jeexale aaya bi moo na cee teg jeexale ko jeexaleen wu diis waaye gis nga wallahu ghafurur rahim yàlla moom ku bëri sutura la ku bëri yërmaande la waaye jéggal na la baal naa la lépp jàmm gis nga bu fekkoon ne yenent bi lañu sant ne ko a ah, comme da nga cee giñu wala nangam nangam kafaaraal waaye xad faradallahu lakum waxul lakkade kon jàkkaarloo ñun jullit ñi nag war na ci yéen jullit ñi ku defetu lu mel nii bu fekkee ngiñ da caa lalu war na ci moom te xillata aymaanikum fekk ci seen ngiñ la nga xool na ni kafaara ngiñ nga kafaara ko mu dal di jeex ñii la wallaahu yàlla mawlaakum moo leen méngoo mooy seen kilifa dee leen ko déglu bu leen ko jiitatu ci dara wallaahu yàlla sama boroom al alim mooy aji xam ji moom yàlla waaye alxakim mooy aji teg mbir fa mu yelloo xam nga sànq ne ala yenent bi sallallahu alayhi am na loo xam ne waxoon na ko Xafsa dégg nga ñii information bi mooy xaraamal naa ci sama bopp lem ñii ne déedéet mooy xaraamal naa ci sama boppu maritu kiptii bii ànd ak itam su ma fi jugee Seydi Abubakar sa papa fàttalikul ila sara jamono bay nëbbu annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ila baadi azwaaj yi jëm ci lenn ci soxnaam yi moo di Xafsa mu koy nëbbu loo xam ne sekker la xadisan aw waxtaan woo xam ne su fekkoon bu ko siiwal bu mu jëm kaw bu ko partagé kenn waaye Hafsa comme que moo nekkoon complice am ah mu yegg ko mbir ma rek ndeke ñoom ba ñu koy yeggalante di ko yootalante di ko partagé naan kaa am na <laughs> yàlla aarisi na kaa bi <laughs> kon yàgg gars yàgg nañoo topp kaa de eh, yàlla aarisi na jibril aarisi na kaa bi ñëw tegal yàlla aarisi ko tegal na jibril a ci yóbbu na sa waay mu dégg falammaa nabaat ba mu informé mooy ba mu xamlee moom Xafsa bi ca Kaaba wa azharahu feeñal na Kaaba allahu yàlla alayhi ci yenant ba da nga de te arrafa xam le ne moom yenant bi baadahu lenn ca Aïcha Xafsa moo ba yenant bi yégée ne Xafsa teg na information bi ci kaw taabal yonent bi dafa ñëw nag arrafa mooy xamal na ko baadahu lenn ci kaaba lenn ci information ba wa aarda mu dumóoyu am baadin ci lenn la bañ kaa topp daal ba sës ko ci miir wiis bi comme niñ koy waxee fa lamma nabbaaha ba mu ko xamalee moom xafsa ba ko yonent bi xamalee bihi ca kaaba xaalat xafsa ne ko waaw yow man am baaka hada kan moola la ne man informé naa Aïcha kan moo la ko wax yéen ne ko yow <laughs> yëguloo li xew xanaa xanaa xamoo ki ma ànd ak ki ma yónni nabba an niya xibaar na ma ko al alimu aji xam ji te moo di yàlla alxabiir ki nga xam ne moo xam biir mbir yi comme ni mu xamee biti bi léegi nag comme njuumte am na tuub leen loolu mooy li jaadu inte tuubaa degam tuub ngeen yéen ñaar ci jàllawle gii ngeen jàllawle secret boo xam ne warutoon a génn ilallaahi jëm ci yàlla bu fekkee tuum ngeen loolu de mooy li war mooy jawaab bi ñu ne ko càppi dagg ah ñu ne ko li waratu mu ne yéen kat fa xat saxat wax dëgg yàlla jeng na xulubukum yéen ah seen xol yi jeng na lay leen waxoon ne bu mu jëm kaw ah partagé ngeen ko ci réseaux sociaux yi fu ne jot ci loolu jaaduwul yéen a ngi kootoo nag ci kaw yeneen bi di teg dil di ko kàmbal wa in tazahara ndegam jàppalante ngeen alayhi ci kaw yenent bi ci lii mu bëggul nii ah bëgg naa ngeen xam ne am na ñu ko téyel ci meekaay nag fa inna allaha naka sama boroom huwa li mbir tey mbir daal wala borom boobu mawlaahu aji méngoo la yenent bi aji dimbale la ko aji jàppale la ko te yàlla ku mu jàppale nga gañe amul sax werante dégg nga ku jàppale nga gañe wa jibrilu ak jibril ñëw na ci coalition yonent bi jàppale ko wa saalihul muminin ak jullit ñi yiw ñu baax ñëpp ñëw nañu jàppale rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kon yéen dañ leen di gañe kon yéen yàlla rek bu ñëwoon doy na waaye xoole ñi wàll fi ñëpp hmm? moo tax ndeysaan yeneen yi moom lam daan wax ci mbiri jigéen ñi rek saawiruhunna waaye nag wa xaalifuhunna <laughs> góor gi bu saaxu daan ko fi mais soo toog ak ñoom di diisoo ñoom ci mbir luñ la wax rek ne tigi tigi tigi tigi tigi tigi noonu la noonu la noonu la tigi tigi waaye nee na daal la ngeen di diisoo ñoom su ngeen jugee mën ngeen a juyoo ñoom defee neneen nu wuuteeg la ngeen doon defee ndax ñoom naak saatu laak la diin nañu te léeg-léeg dañuy demee seen bëgg-bëgg yoo xam ne sa gis-gis moo gën a sori seen bos-bos góor ga nag da ci daan teg ne góor ga dafa amoon ñaari doom ne leen ba muy bëgg a ba muy bëgg a faatu dafa amoon ñaari doom ne leen nag a ah, maa ngi nii nag su ma fi jugee itam seen yaay moom lu mu leen wax wala su ma fi nekkee ak su ma fi nekkulee yëpp lu leen wax ne ko waaw waaye su ngeen demee nag xoolal leen lu ngeen di def gone yee di dem tool seen yaay ne leen yóbbaale leen ndox ndox mbóoy mi dafa tar mag gi na ah yow xanaa déggoon li baay wax baay nee na suñu yaay waxee nañ def lii nañ def leneen nga bëgg a def li yaay wax noonu nee na ñu dem ca tool yi di bàyyi rek mbooy mu tàng lool nee na fa yóbbaale woon ndox daal di jéem a naan ba gay da ñëwee ñoom la fàdd ñoom ñi nga xam ne nag ñoo defut ñoo ñoo ba ñu la yóbbaale ndox ndax mbooy mu tàng mënuñ faa xaar mbooy ma ñoom dañoo gaaw ñib si waaye <laughs> loolu la ci jàngale ne kon suñu waxee lii defal lee waaye saawir wuhun na wa xaalif wuhun na ndax ñaara li ñuy digle léeg-léeg day xaw a méngoog seen bakkan yi trop day gàtt bu ëpp daal dégg nga kon wal malaay ak malaayka itam baada dalika gannaaw ndimbalug ñooñu zahirun aji jàppale nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yenent bi nag toog ab diir boo xam ne dafa beru soxnaam yi toog weer mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yoo xam ne duggul ci benn néeg soxna ah yëf yi xaw a doy waar lool ba Seyda Omar yéegee loolu ne yeneen bi dafa ber dafa ber soxna ya ñi naan fas na leen ak fasawu leen ak ñu ne fa la nekk muy ñu barab boobu ñuy wax masru fa la ne Seyda Omar dugg ci Xafsa doomam fekk muy jooy mu nekk ah yow yeneen bi da leen a fase mu ne ah man de xaw ma ci dara waaye depuis daal boobu ba léegi daal maa ngi ca barab bee waxut ak kenn lu dara waxut ak ñun dara Seydina Omar nee ma ñaan autorisation ba mu ñee ki nga xam ne moo taxaw ci buntu bi di gardien bi may ma ndigal ba mu ñëwee fekk naa yeneen baa ngi sukkandiku ci basan goo xam ne basan nga wow na wow goo xam ne ma nga marqué ci yaramam wa mu ne waaw yeneen bi da ngaa wàcc jigéen ñi yeneen bi toog mu yàgg na ko déedéet mu nekk allahu akbar man daal xam naa yeneen bi ñun daal loolu danañu dal rek xam nga ñun bañ nekkee Quraysh di Màkka ñu daan dominer jigéen ñi waaye bañ ñëwee Madina Munawwara fii ñoom jigéen ñi dañ leen a yilif yilif yilif yilif ba dégg nga maam li ñu naan al insaanu ibnu bi atihi maanaam nit ku ne doomu environnement ba nga nekk nga environnement wu madinatu munawara wàll na suñ soxna yi ba ñuy jéem a yilif waaye sama soxna si boo déggee la ma doon laaj ba ma ko jàppee defatu ko de yeneen mi ngi nii de loolu lañ may wëree nii de tabaarakallaahu Seydina Abubakar kenn ku dem ca doom attaqué ko wane na yow yeneen bi ñun ñëpp a ngi ànd ak yow tabaarakallah tànn leen dem wala tànn toog tànn booba. moo dellu siwaat nii tànn dem wala tànn toog rek booba ñu jàngoon ca ginnaaw yaayi nabi qul azwaajik in kuntu in kuntunna turidna al xayaata dunya moom lay junjat fii mottali yëf yi fi nga nee na asa amaane rabbuhu boroomam in tallaqakunna ndegem fas na leen an yubaddilahu mu remplacer yenent bi azwaajan ay soxna xayran yu gën min kunna ci soxna yii ñoo xam ne muslimaatin ay jaamukat yàlla la ñuy doon muminaatin ñuy woy gëm dëggu lool womatu lool waaye xaanitaatin ay toppkatu yàlla la ñuy doon di jaamu yàlla ci guddi ak bëccëg taa'ibaatin way tuub lañu seen njuumte yu ñuy def seen digganteeg seen boroom aabidaatin ay jaamukatu yàlla la ñuy doon nekk ñu toroxlu waaye saayixaatin ay woorkat la ñuy doon dootuñ yemati ci kooru farata waaye naafila fara naafila kor duñ ci jugati xam ngeen yéen ñëpp ay jeeg ngeen ba ngeen di sëy ak sallallahu alayhi wasallam kenn rek moo ci nekkoon jànq te mooy yoon su ngeen fa jugee damay milancé affaire bi jànq ak jeeg laa koy defal boobaa ngeen lonk de sa yibaatin naa ko may ñoo xam ne ay jeeg la doon wa abkaara ay xale yu ndaw ta pare yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla ñun la xu fegal leen anfusakum seen bopp wa ahlikum ak seen njaboot yi xirtal leen ci ñu topp yàlla ndax kullukum raain wa kullukum masula an raayati ko kay war loolu dafa dégacé ba pare hmm? la ngeen lan ngeen leen di fegal naaraan te fegal gi kat du dara lu dul teg len leen fi yàlla bëgg rek ak ab yénantaan loolu donc mooy fegal gi nag du leneen waquuduha tàkk-tàkk la tàkk-tàkk sawara loola annaasu nit ñi la jël di ko xambee sawara wal iyaazu billah ak xeer xeer yañ daan jaamu sunu borom da koy jël def ko xambee sawara soosa alayha nekk na ca sawara soosa malaikatun ay malaayika yoo xam ne ñoo koy garde xilaasun ñu nekk ñu dëgër waw xol lool si daadun ñu nekk ñu tar am kattan nga xam ne ku ñu dugal ku nga wàcc ñooñu am nañ doole ñu seen kanam yi sax boo leen xoolee doo leen ñeme hmm? ndax dafa am loo xam ne moom borom xol bu woyof mënu ko foog nañ lay moo ñaale xol day dëgër këj waaw kay ndax nga mën a def yëf ya te nag laa yaasuuna dunu mooy ñoom malaayika yooya allah yàlla sa borom maa amaruhum ci lépp lum leen sant lu leen sant ña nga ca te wa yafaaluuna dañuy def maa yi umaruun lépp lu ñu leen digal daal subo ba ngoon ci loolu la ñuy xëy ci loolu la ñuy gont ci rek la ñuy ne dégg kon ta kaa gën a rek comme du ñu mën seen borom kon ñu ngi def ndigal mu ne dañuy def lañ leen sant kay day gën a féetale rek yaa ayyuhal lazina kafaru watul benn yoon la al ci alxuraan yaa ayyuhal benn boobu la ci de laa taatasiru bu leen fi layyi al yawma tey tey jii kat fii ngeen di layyi ci kanamu sawara amu fi njariñ innama tujzawna du ma ludul fayeef ne leen maa kuntum lépp loo xam ne nekkoon ngeen taamaluuna di ko jëfandikoo yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla tuubu tuub leen ilallahi jëm ci yàlla at tawbatu nag abdullahi ibnu abbas daan wax ne moo di al istigfaaru bil lisaani wa nadamu bil janaani wal iqlaa bi arkaani te tuub nag dafa séddalikoo ci alul ishaaraat ñeenti pàcc tawbatul am dafa am tawbatul xaas am tawbatul xawaasul xawaasit am tawbatul am comme sama maas gi ñoom bàkkaar nii rek def bàkkaar tuub ko tawbatul xaas nag mooy ayib yi nekk ci seen bakkan yi dañ koy sant wala xalaat yi léeg-léeg yi ñuy xalaat la ñuy tuub xawaasul xawaasi nag mooy suñu absenté benn cers boo xam ne xalaatuñ ko yàlla loolu jàpp nañ ne bàkkaar la ci ñoom ñuy jéem a tuub loola kon tuub yi ay étape étape la comme ni ragal mooy mooy dama leen wax ci ragal yàlla ga démb looloo fi feeñaat tawbatan ak tuub nasuuxa bu sell ba ñu def la rabiatul adawi doon wax nee na istixfaaru naa yaxtaaju istixfaaran ñun suñu astafirlaa dafay aajowaat beneen astafirlaa wala fi nag ñoom dañuy naan na ma yàlla baal doon di def bàkkaar bi léegi bàkkaar boobu nga xam makkaan moom kañ gi tuub loolu la wala fiy def di wala sénégalais yi bokk na ma yàlla baal daal di départ nag <laughs> kenn mënul dégg loolu ma ngoog asa rabbukum amaana seen boroom an yukaffira mu far an mu faral an ankum ci yéen sa yaati yaatikum mooy mu supprimé seen ay ñaawteef su ngeen nangoo tuub arrière dellu ci borom sarti tuub nag ak ya ca xew yëpp jàngoon nga ko ci lax dari ba ah, ak ci yeneen téere yu mel ni ki doon nag Cheikh Omar indi na ci ci nan mursid waay xay damay bëgg a dee banaan nan waaye yow foofu daal indi na fa sarti tuub ni ñu war a tuubeeg yëpp daal indi na ci buntu yi yaatoo yaatu sax nag boo demee ci aljawaahir wa duraram bi daa ko fekk bu fekkee amoo téere ba mu nekk mustaqil la daa ko fekk foofu mu ngi ci biir téere booba nan mursid diin waay eh, ma nga kon bu jugee da nga xool ko foofu aywa wa yudxilukum wa yudxilakum dana leen dugal moom borom bi jannaatin ay aljana yoo xam ne tajiri dafa daw min taati ak ci suuf aljana ja al anhaari yoon lay ñeen yow ma bis la boo xam ne la yuxsi du muk mukk mukk allahu yàlla annabiya yenent bi bis boobu yàlla du ko xot du ci xotti suuraam benn yoon de wallazina ak gaa yi nga xam ne amanu gëmoon nañu maahu ànd ak moom ñoom itam te doon góorgóorlu yàlla du xotti seen sutura te nag nuuruhum seen leer seen jëf ja yasaa day dox moom leer ga bay na ay diihim soppeeku lumière boo xam ne moo leen di niital ñu xam ndax nday jor la ñuy jëm wala càmmoñ dañuy avancé wala ñuy arrière wala ñuy taxaw wa bi aymanihim ak leer gi dina nekk seen ndeyjoor su ko defee ñoom jullit ñu naan yaquluuna ñuy wax naan rabbana yow sunu borom daal at mim lanaa yàlla ñu mottalil leer gii yàlla ñu mottalil lanaa ñeel ñu nuura na euh, comme ni Cheikhul Hadj Malick li ixtibaas ba ca Tilaaw Zahab at mim lanaa nuura naa wax fir jaraa'imana taqdi hawaa'ijana yaa waasi'a rahmi saaru li ixtibaas la def foofu dégg kon nuura naa sunu leer wax fir lanaa yàlla ñu jéggal innaka naka yow yàlla xadiirun ku mën nga ala kulli shay ci lu ne mën nga ko kon nag yàlla ngal ñu mottali leer ga ba biir aljanna yaa ayyuhan nabi yow yenent bi yow laay wax yow mi ñu soloo mi jaahit jihaatalak alkuffaara ñi nga xam ne dañu weddi seen boroom jihaatalak nit ñi jihaatal yéeféeri kon ci jaasi ndax loolu la ñu yelloo pour lan atte yi mën a taxaw waaye wax lus ah, wal munaafiqiina kon afan wal munaafiqiina ak naafeq na nga jihaat ak ñoom ci làmmiñ ndax ñoom comme danañu ñëw ci jàkka ji ñëw ci ñëw ci lu ne waaye terewul rek ci làmmiñ nga mën a jaloganteeg ñoom def ak ñoom débat yu tàngata saf ba yey leen dominer leen ci la ñuy mën a ñëwee nag waaye jihaat boobu itam ñu la ko santee ci sa noon noonu lañ la ko santee ci sa bakkan santee la ko ci seytaane ak mboolem loo xam ne day dox su digganteeg sa borom rek da ngaa war a jihaat ak pour mu dégaase wu boo ko mënulee nga dem ci mu rab bi mu teg la ci yoon di la omat étape par étape ba yooyu nga xam ne mooy doon gàllankoor dañ ci yow di noonu la ñuy doxee dem ci yàlla di waxlus teengalal taralal bu baax xiisalal bu baax a baax alayhim ci ñoom naafeq yi sooy dajeek ñoom na kaddu yu dëgër te wa mawaahum seen tafuwaay moo di jahannam wa bi sa bon na almasir mujj googu te moo di sawara mu ñëw ci yent yàlla ñaari yenent yooyu di yent yàlla luut ak yent yàlla nuux seeni soxna kon loo ciy déggee ah nekk nit yàlla terewut am soxna su bon de terewut it yàlla nattoo la njaboot gu bon ñii kenn gënu leen a nekk nit yàlla te gis nga li leen yàlla nattoo mënuñu ci dara looloo neex borom bi nag kon jabari sëriñ bi la rek warta bon warta xeesal te léeg-léeg sëriñ ba day tere warta meesu léeg-léeg sëriñ ba day tere waaye nattu la ci moom te yàlla nattu la ko mënu kaa bàyyi waaw te bañ ci demee bakkan rek nag daraba sadd na allahu yàlla sunu borom masalan aw yeete li lazina ñel gaa yi nga xam ne kafaru weddi nañu ne imraata nuux wamraata luut kaanataa ñoom ñaari soxna yooyu nekkoon nañu taxta abdayni nekk ci sunu suufu ñaari jaam ña min ibadina ci sunu jaam ña saalihan yi aj yiwe baaxe lool toujours luy defar nit rek moo ci la ñuy xëy la ñuy gont waaye gis nga ñaar ñi ndeke woo gëmuñu dara mhm. nitu intérêt lañu àdduna leen tax a jug yàlla natal la mënuñu mënuñoo tàggoo moom kon nag loolu du natteekaay comme sëriñ baa ngi jubal di baaxal soxna seriñ bi jubalul baaxalul nga bëgg a roy soxna sëriñ ba kenn roy la wala soxna sëriñ ba di waaw sëriñ bi sax boo koy roy na fekk nay moom it tege na ko fu jub waaye bu tegul fu jub moom laa laa daan wax rek lu bon moom jëlul roye sub sëriñ fa xaalataahuma ñu war leen ñoom ñaari soxna yooyu ñu war seen borom kër ya fa lam yuxniyaa jëriñu ñoom ñaari yenent yooyu anhuma ci seen ñaari soxna ya minallaahi ci duma yàlla soyaan kon yow na nga ne sëriñ bi nga jabari sëriñ bi nga bañ a topp yàlla doomi sëriñ bi nga bañ a topp yàlla dama ne yaa ngi nax sa bopp wa qiila waxeef ne leen ñoom ñaar udxula dugg leen an naara ma daaqilin wa daraba sadna allahu yàlla gis nga foofu itam ma ngoog bu nekkee kooba nekk bandi nekk wëyu nangulul yàlla dara yàlla boole gaak soxna su nangoo jaamu yàlla baax lool lool ba mel ni Aasiya mii ñuy bëgg a wax digganteem ak Firawna ah tabaarakallah kon boobaa kilifaam gu góor googule sa war a rek xanaa yàlla jàpp ci ak masalan aw yeete lillazina yii yëpp da nga koy gis ñu koy dund nag nii mu amee woon ci yeneen ba léegi nga ngay gis koo xam ne ku baax lay doon soxna si safaanu lool gis koo xam ne itam ku wëyu lay doon woo xam ne yàlla gu jox ko soxna su baax lool nangoo topp yàlla lool nangoo mokk ci yàlla lool nangoo xeenti yàlla lool mi ngi am ba léegi lillazina amanu ñeel ñi gëm yàlla imraata firawna soxna firawna soosu isqaalat jamono ba nga xamee nee na ku gëm la su daal nakay da ngay weddi nag mbaañu ñu indi lay jafe-jafe ndax dañu ko daajoon defar ko ñeenti gétti nii jaaxaanal ko jël ay xeer teg ci dënn beeg naka nag dañ lay rey boo weddiwul mu ne sama borom ñii de dañ may fexeel di ma rey waaye lépp delloo naa ko ci yow is qaalat jamono ba muy wax ci jamono ba ñu buggol mbugal mbugal yu métti yooyu ci kanam firaaw na ma nga naan rabbi yow sama borom ibni lii tabaxal ma ay dëkk fa yow baytan ak kër fil jannati wala baytan ab néeg fil jannati wa najjini yàlla nga ma musal min firawna ci firawna saay-saay bii wa amalihi ak jëfam yu ñaaw yi wa najjini yàlla nga ma musal min al xawmi ci gaa yi nga xam ne azalimin ñooy way tooñ ba nanguwuñu topp yàlla lu ñu def ko waaye tabarakallahu yàlla daal di ko fay jële yëkkati mu dem aljanna hmm? dégg nga ëllëg nag ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk wa Maryama ak Maryam moomu ibnata Imran moom ci jigéen ñi yiw ñu la woon jigéen ñu baax ñi la woon kon li yahud yi teg ci bi sunu borom nee dara du ci dëgg allati mooy soxna sa nga xam ne ahsanat ñoŋal na farjaha payam mooy boppam fa nafax naa ëf fii ci min ruuxinaa sunu sekkere wa saddaqat dëggal na bi kalimaati rabbiha ci sharia yi boroomam mooy yi yàlla wàcce woon ci moom ci ay atte jaare ko ci yonent yàlla Isaa ak yonent yàlla Muusaa ma nga fi jiitu woon lépp nangu na ko wa kutubihi ak téeréem yi ñu wàccee tawraat ak injil ak zabur yëpp déggoon na ko wa kaanat bokk na fii nag minal waxul minal xaanitaat min baabi taxlib la minal xaanitiin bokk ci ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla jaamu wala matul aywa ñu dem ñu dem ñu dem minal xaanitiin bokk ci ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla di topp yàlla daal topp gu